amul ndey dëkk bi am courant am tali am ndox beneen bi nekk ci peggam amul dara président ne nous sommes des sénégalais nous sommes des sénégalais donc dañoo war a traité au même pied d'égalité loolu mooy combat yi nga xam ne ñun dénk nañu ko mooy combat yi nga xam ne président wax na nañ jëm côté boobu la des nag

baax na kenn ku ne di jotee nga mënal añ ba suur bu reer jotee nga reer ba suur ndékki jotee nga def noonu parce que ñun ñëpp ñoo bokk ci réew mi kenn ëpp ëppalewu ci keneen te pour cette raison mu jël luy tolloo quatre-vingt-cinq milliards mu jënd ko ay tracteur ci biir réew mi ren waxuma li jàll li jàll mën naa ci ñëwaat lu bëree bëri parce que lu ci bëri sama loxo jag la jaar mais au delà de ça mu jël luy tolloog cent milliards mu ne campagne agricole ren bi dafa métti kon lii nii daaw 60 milliards laa def ren defal leen ma ci 100 milliards 100 milliards yooyu lu ko indi lenn kese la mooy jàppale askan wi surtout ñi nga xam ne noo nekk ci wàllum mbéy bi ñu mën a am intrant ñu mën a am euh, engrais ñu mën a am euh, semence waaye aussi ñu mën a am matériel agricole boo xam ne def waat ci loolu nag ñun en tant que ministère en charge de l'équité sociale